2021 euh, on peut dire que ne ci la jafe-jafe yi commencé ak Ousmane Sonko 2021 2022 2023 utiliser les moyens de l'État force de l'ordre yi nga xam ne yaa ngi koy wax euh, gis nañ ne suñ wàllu institution maanaam justice ak li ni mel tënk bi nga xam ne tënk nañ ko aussi ci mbirum Ousmane Sonko ba tax na sax wax na ci wàllu conseil constitutionnel cour suprême ainsi de suite teewul ne les moyens de l'État yi nga xam ne génn nañ ko depuis mars 2021 ba léegi Ousmane Sonko amul benn euh, moyen boo xam ne maanaam tënk tée na ko te teewul ni jusqu'à présent ñoom la nga xam ne bëgg nañ ko ko mën nañu ko am jàngat boobu noonu ba mën ko parce que Ousmane Sonko dégg ma am na kàddu gum mu wax ñoom dool lañu utiliser man ma utiliser sama xel kon boo mënoon jàngat ci loolu lan nga ma ci ban jàngat nga ma ciy defaral waa doole day xam nga doole sax xel moo koy contrôler kon da nga xam ne doole xel a ko ëpp doole moom moom doole moom moom ci boppam beneen bi mooy Karim Wade lan la déposé waa conseil constitutionnel lay jéebaane ba tudd ci ñaari tur di leen tuumaal wàllu guerre ba tax ñu ubbi ci enquête ah, commission d'enquête parlementaire léegi moom Ousmane Sonko li mu doon wax waxal nañ ko ko pourtant am na ay nit yu taxawoon fii naan waaw dañoo war a respecter yoon Ousmane Sonko nangam ba Karim tollee fii nangam ak nangam dañ ko mu wuyu jusqu'à nangam nangam nag ah tey ñoom ñoom ñi ngi wuli pande ay magistrat yoo xam ne sax yoon moo leen sax jox humilité daanaka daanaka pour ñu nga man leen a topp sax conseil bi moom mooy wut ko at nangu nga mën leen a topp te pourtant ñoom ngay topp. xam nga léegi dafa am loo xam ne ci kaawu Karim Wade rek li mu déposé li ñu ko bañal. Mhm. xam nga Karim Wade dafa déposé woon depuis deux mille dix huit euh, renoncé wu France tontu wu ci. Mhm. loolu képp doyoon na sëkk pour Karim Wade jarul woon moom muy bindaal France. ba France di tontu moom looloo ko sànq li ko sànq moom moo ko defal boppam Thierno Alassane Sall li mu def lu mu war a def la ku mu soupçonné da ngaa am double nationalité war na koo soulever. raison pour laquelle Abdoulaye Wade moo fi indi loi boobu Karim du double nationalité c'est un binational binational binationalité la am. Mhm. Sénégal nag li loi bi daf ne il faut et exclusivement kon exclusivement binational ak double nationalité yëpp day dugg mhm. léegi yow Euh, les autorités français tontuwuñ la am na six mois loolu dañ koy yamaleek lu dañ même bu fekkee ne ma nga fa yow lettre ba nga bindoon rek ca deux mille 2019 andi ko présenté ko conseil constitutionnel da doon jàll mais yow lan nga présenté maanaam lettre bi la français yi tontoo ci le 16 wane ne maanaam nangu nañ la ko kon yow ba ngay déposé ca maanaam weer wala lu jege weer ginnaaw ba yow boobu yow yaa ngi ci woon ci biir bi ñu koy indi léegi yow kon le 16 kon ngay doogu génn te yow Thierno Alassane Sall ba mu lay porter plainte le 16 jotagul. Uh-huh. lan nga fiy gis kon moom yat bi ko duma moo ko jox gars yi. loolu kon lan la ci mën a ŋàññi conseil constitutionnel léegi nag foofu nag la waa conseil constitutionnel tooñ gi ñu tooñ Ousmane ko ñoom li ñu defee Karim Wade dëgg li ñu àtte dëgg ci jamonoy Karim Wade li Karim wàdd moom uh-huh. wane ne kon ci li ñu jaa àtte Ousmane Sonko ko ci dëgg. teguñ ko ci dëgg. wala yanuwul maanaa boog mu xaw ko woyofal. Uh-huh. mooy laata affaire Ousmane Mbaye affaire Imam Mbaye Mame Mbaye Kaniang bi di génn boobu fekkoon na mu déposé beneen bi nga ne Cour suprême moo leen ko andil moo lum leen ko andilee leneen mu nekk fi L30 terewul bokk kenn ci élection même bu dee dañu ne sax euh, nga dem 34 ak 40 mu wax la ne euh, citoyen pour ñu génne ko dañ koy jubal bii ne la pour ñu génne ko dañuy déclencher procédure de radiation procédure de radiation boobu. Mhm. mooy la ñu déclenché woon ca kii ba jox notifié ko pour cinq jours lay am ginnaaw bi. bis bi ñu ko bindee ci journal ci la ko Karim Wade di doog a jël xaw ma. Euh, Ousmane Sonko doog a jël dem attaqué ko. Mhm. ñu naan non publica publier nañ ko taf nañ ko fii ak nañ ko fii saaba si fay jox ko dëkk ñu yegg si cour suprême ne saaba si fay lii nga àtte baax na waaye fi nga ko fi nga ko jaar moo baaxul daal koy dénkaat. grande instance de Dakar coon jaar fam jaar jaar fa ko gën a leer wane ne ki noonu ko génne dugalaat ko ci kon dugalaat nañ ko ci mi ngi ci biir mhm. kon su demee ci Mame Mbaye Kane ñaan projet boobu dañ ko cee daan ma nangul leen ko mhm. dañ koo war a notifier Ousmane Sonko juróomi fan mu attaqué ko su ko attaqué ba pare te amul ci guerre ko ci lay doog a dugg ci lañ koy doog a génne mhm. ci lañ koy doog a génne ci euh, fichier bi suñ ko génnee ci fichier bi nag L57 moo ko ci génne. L57 moo ne tout Sénégalais électeur moo ne yéen waa Sénégal bala ngeen ne naam nefa kon su ngeen nekkul électeur mu ngeen mënta wéet bu ngeen mënta wéet mënu leen a nekkuk la wax. wéet mooy vote. Mhm. mooy ku mënta wéet mënoo doonuk la wax la wax mooy candidat. candidat mhm. ok léegi loolu kon kon danga xam ne kon tooj nañ Ousmane sunk mhm. te Karim Wade tax tooñu Ousmane Sonko gi gën a leer. moo ne kon Ousmane Sonko mi tooñ moom yóbbuwul waa conseil conseil constitutionnel ci yoon yóbbu leen deful enquête parlementaire mhm. Ousmane Karim Wade mi tooñ boppam moom moo dem yóbbu waa conseil constitutionnel ci yoon mhm. te li mu leen di topp euh, tuumal nag euh, seddul de leen dañ leen a ger corruption la leen toppee ku leen corrompe osez pas ah déedéet ah, wala point d'interrogation ah, ku leen corrompe point d'interrogation kan moo am moyen corrompe point ak kooku lan mooy mobile. Mm-hmm. lan mooy mobile mu war leen a corrompre. Mm-hmm. man jàpp naa ne ñooñu bu ñu doon corrompre dañuy corrompre pour Bassirou bañ a bokk. man dama jàpp ne Karim Wade bokkoon ci élection yi sax moo gën a arrangé. Benno Bokk Yaakaar. voilà léegi ñu ñëw ci euh, ba léegi ci li nga xam doon naa ko wax ci moyens yi nga xam ne état mi koy utilisé contre Ousmane Sonko teewul à chaque fois euh, la nga xam ne seen bëgg-bëgg la duñ ko mën a am parce que démb vidéo bi nga xam ne Ousmane Sonko euh, def na ko ndiki démb dafay firndeel que ne maanaam tënk bu ñu bëggoon tënk Ousmane Sonko mënuñu ko barricade cinq jours n'empêche amuñ li nga xam lañ bëgg. Cap Manuel mi ngi fa ba léegi n'empêche Ousmane Sonko ma ngay doxal stratégie bu bëgg a doxal 2021. yaa ngi utiliser sa doole contre une personne kooku doon di utiliser li nga xam ne mooy xelam contre euh, askanu Sénégal mën naa ko xëy na parce que loolu dafay nekk loo jariñ la jàngat boobu noonu lan lan lay doon boobu doon ko defaral comme. Euh, jàngat bon pour ma jàngatal ko gars yi nañ dem ci làmb ji rek Modou Lo ñim daan ñëpp ci seen doole la leen daan. Mhm. Ousmane Sonko ci seen doole la loolu mooy jàngat bi gën a gaaw rek sa régime ci Modou Lo. Ah. ak mbër yi ci des. pourquoi nga jël euh, moo que daa xarañ. ok loolu la seen seul point commun moom Ousmane Sonko mooy xarañ. Oh. Ousmane daa xarañ ci li muy def. nga wàdd ba muy ba ko ba mu recevoir Moustapha Guèye naan ko luy ruufu. Uh-huh. naan ko roofoo mooy nga dugal sa galgal dal di jàpp ngeen defante nii <laughs> pour bi ñu roofoo nag mu ne ko lu ci mën a am mu ne ko galgal ak nàngam ak nàngam mu ne ko galgal boobu ci lay daan kaay léegi nag Ousmane Sonko galgalam yooyu ci lay jàpp gaay ci la leen di. <laughs> ci la leen daane. ci la leen di daane bon loolu la affaire yi affaire yi yëpp ci xel la parce que doomu aadama ñun xel lañu yàlla jox. dëgg te suñu xel moo ñu wutaleeg mala yi. léegi nii mala yi sax dangay gis ne dañuy gën a wàcc di niru nit ñi léegi da ngay gis muus muy dimbale xaj. wala muy dimbale ginaar. doo comprendre daal nature bi léegi dafa mel ni doomu aadama yi ñoo gën a picc jëm ci bàyyi ma. da gis nit ku am alal wala jiite nit ñi ba pare gën a dof ñëpp wala nga def ku doon kilifa nit ñëpp di la teg ngay li beneen bi mooy ñun dañuy am ay ay idole maanaam dañuy am ay ay kilifa yu ñëw wane yoon wu leer ñu war leen cee roy wala nit ñi roy leen ci di leen teg yàlla wala ñu leen teg comme malaaka wala jant wala affaire yooyu ba mu mel ni léegi kenn waru leen a roy démb damay waxtaan bay joxe benn exemple ci doxinu mhm. Pastef manaan gars yi euh, Ousmane bi ma koy kiyee ci bi Xaarim Bamba Diagne di def cérémonie dédicace ci livre bindoon ci euh, yoonu ñëw ci cérémonie dédicace bi liir livre ba pare ne ko man lii laa gëm. ma ne leen loolu euh, dafa mel ni gëm googu Ousmane wax yemul ci ay wax. mais daf mhm. ko jëfe ci naka ma ne leen bi 26 1926. boobu mhm. sëñ Touba un an la ci teg après wuy ji liggéey euh, wàccub liggéey. dafa amoon yéene tabax jumaay tubaa ji ginnaaw bu jumaay njaareem pare ba pare. Mhm. mais simb bi ni mu rëyee ci jamono yooyu tubaab bi gis ko ne ko lii gros la fekk da doon laaj demande de construction. ñu ne ko lii gros la du ay communauté yi ñoo ko mën a defar faaw état français jàpp ci. Mhm. sëñ bi nag bëggul woon état France jàpp ci. jàpp te am na ci nit ñoo xam ne xañ na ni ci état.